jëre ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na tey comme ni ñu ko defee ki nga xamante ni mooy Petit ñoo ngi fii seet si ki nga xamante bu ndaw ñu bàyyi mu nuyoo démb nag mbokk yi moo doon bëgg ak ki nga xamante ni mooy Petit mu nekk combat boo xamante ni combat bu nu ñu doon xaar la combat bu amateur yi bëggoon la comme ni ma leen koy waxee rek bi ma laajee Sokh ne ko noo gisee combat Sokh bu ndaw ak ki nga ñëpp ñoo ngi wax naan pass piqué bu ñu bu ñu woowee bëre dañuy bëre bu jeexee jeex na te mu nekk combat boo xamante ni am na lu bari loo xamante ni jotoon na ko cee ñaanal ñu gis ko moom démb bi mu ñëwee gis nañ ci moom beneen changement gis nañ beneen soq bu bees ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a waxtaan wi soq nuyu naa la. oui maa lay fay Ouzin. Mhm. waaw avant tout damay wax salaamaaleykum quoi di nuyu ñëpp. Mhm. waaw nuyu waa Guinaw Rail di nuyu waa Pikine yëpp. waaw di sant yàlla bu baax nag si combat bu ñu jógee nii. waaw di daal. waaw di sant yàlla bu baax nag. waaw ndax làmb ñu metti woon na trop mais comme génn nañ si ak jàmm rek alhamdulilah quoi waaw. Euh, combat bi ñu gis bi combat bi taxawee daanaka bi muy taxaw ak bi ngeen bëree nekkul préparation bu yàgg ñu jékki-jékki bi combat bi taxawee daanaka ñu ci bëri gisuñu la kenn xamul soq bu ndafam nekk ñu ci bëri nag nee noon day làqatu di liggéey lan moo waraloon pata pataal bi nga xamante ni kenn gisuloo ci signature yi kenn gisuloo say say préparation kenn gisuloo ci internet gisuñu la fenn lu waraloon loolu. moom dëgg la bu baax. Mm-hmm. waaw te avant tout maa ngi jégalu quoi comme Fallou Ndiaye moom moom ñu suñu grand la ko mm-hmm. waaw ndax man dama koy xoolee comme tons rek. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla ndax grand moo respecté la quoi te ku tam ku baax la. ndax moom moom wax dëgg yàlla moom ñun ay xale lañ mais moom moo ñu njëkk a jox cër ñu delloo ko. dëgg la signature yi nag maam li taxoon dew ma loolu du woon sama coobare sax. amaana dama génnoon ñu yéex maa wax rek fekk ma dem. waaw looloo taxoon teew ma si quoi mais après jot naa expliqué ak moom ba ñu waxtaanoon ba jubóo ndax moom sama grand la wax dëgg yàlla. waaw su ma sañoon tam xam nga bu yëkkatee xaalisam jox ma lépp lu ma si wax daal dama koy respecté. Mhm. waaw di ko jégalu foofu bu baax. mais ñu gis la euh, ku ci ku ku ci waaj combat di nga def point di nga def open press wala nga def point de presse wala boog jël si la la moo taxoon yooyu yëpp kenn gisu la ci. dëgg la xam nga maanaam ni ku nekk ak jikkoom wala ni ku nekk ak ni muy doxalee ak ay làmbam. Mhm. waaw man dama préféré xam nga rek nekk si liggéey bu ko wax ndax mbër moom maanaam lu ñuy njëkk wax du ay open du ay wër si di wax du affaire yooyu noonu entraînement mooy pay te man si loolu laa concentré ko. mais nag mais nag mais ñoo leen di jaay ñoo ñoo ñooy def promotion combat bi ñoo leen di wane wala book dañ la combat bi moo laajoon loolu tëju. non du question la laal maanaam comme loolu sax ndax xam nga comme tey jii man xale laa. Hmm. nekk si làmb xaw ma dara lu may sóoraal si nit bay tax may loolu wala may laaxatu xëy na làmb ji moo laajoon loolu comprendre nga ñu defee ko nu mu waree xam nga yàlla may ñu si ndam loolu kese la woon quoi. parce que démb bi nga simee ko nga simee ñi nekkoon ci stade wala ñi nga xam te dañuy dund làmb ñëpp nee nañu état de forme bi soo ko am moom la doon nëbb Petit moo tax nangu woon feeñ parce que da bañ yokku Petit Lo am leneen lu mu changé ci liggéey bi wala xam ni mu bëri ak moom moo tax nga loolu woon bañoon bañoon a feeñ ñu gis état de forme bi. non lu loolu sax xëy na gars yi ñoo gis loolu rek xëy na gars ñoo gis loolu mais xam nga yi moom làmb moom suñu waxee làmb rek ku si nekk day wax analyse am quoi. Mhm. maanaam wax lu mu si xalaat ak lu mu si yaakaar. mais nit ki tamit xam nga am na droit maanaam préparé woo ni mu bëggee daal. comprendre nga man làmb ji entraînement rek lañ ma si sasoon ak li nga xamante ni war naa ko def mooy mbiru làmb. waaw te bàyyi ma si nag dara waaw te réccu ma si tam dara. la moo taxoon nga jël Petit Lo parce que ñu gis ko mu ne xale boo xamante ni ndaanaan la ci wàllum bëre ci wàllum xeex kenn naataable wu ko bu ñëwee dalee imposer duma la daan la. wala mu imposer la force la la li ma bëgg ci ci ci Petit Lo ba pare parce te yaakaar naa moom tamit amoon na benn combat bu dul yow aussi. loolu dëgg la xam nga man comme li ma la wax léegi rek man xale laa aw ma ku may sóoraal si làmb te aw ma ku may ragal si làmb amul. Mm-hmm. Petit Lo nag wax dëgg yàlla lu tax ma jël ko dafa nekk xale rek nekk sama morom. Mm-hmm. lamb boole ñu war a bëre moo tax ma jël ko mais du question rek moom laa taamu woon pour bëreel wala dama ko doon moytu pour bañ a bëre ak moom. waaw ndax xëy na moom ñi koy moytu ñoom ñoo am lu ñuy sóoraale si moom ko mm-hmm. waaw mais man moom du may faral di sóoraale góor waaw. waaw loolu moo si nekk. ñu gis la démb da ngay concentré wu ñëw def li nga war a def dem toog def li nga war dem toog ndax nga est-ce que ni nga bëree moom démb noonu nga programme woon bëree Petit Lo. non waaw ndax xam nga ñun yilifuñ suñ bopp quoi. Mhm. am ay papa ak ay coach yi ñuy jàppale ndax ñun kese mënuñ yóbbu suñu bopp làmb ñun kese mënuñ def dara. Mhm. waaw ndax ñun gu ñu xam-xamu làmb quoi suñu boor si ak ginnaaw ay nit comme ñu si mel ni suñ papa ñoom Zilbale. Mhm. ak ñoom Thomas suñuy coach ñoom Yves ñoom Lise suñuy coach box yi xam nga ñoom Fallou ñu yor ñu di ñu jàngal lépp nag ndax ñun mënaguñ dara si làmb te dañuy soog a tàmbali. waaw comme xam nga rek ñun bu ñu demee làmb tam si seen i waaw la ñuy wéy quoi. defal lii ñu def bàyyi lii ñu bàyyi. waaw ñun daal loolu lañ si am conseil rek la ñuy demee ndax ñun mënaluñ suñ bopp dara waaw te sans ñoom tam mënuñoo dem waaw loolu moo tax ñuy doxalee noonu si làmb rek mais du dara. ñu gis arbitre sifflé sa digganteeg moom mu cookaas nga taxaw di ko déglu. la ma woo la mpataag da nga ko doon xaar mu mu mu parce que comme que ñeen ñëpp nee nañ Petit Lo mënul xaar te chaque jour day bëgg a forcer adversaire am est la conseil nga bëree ko nga taxaw nga taxaw déglu Petit Lo mu diriger. non la xam nga comme maanaam Jules mhm. moom dafa xam mbër. Mhm. te maanaam na la bañ a sax bu la xoolee sa doxalin rek maanaam mun na xam kii fu mu fooree ak fu mu tëlee. Mhm. ndax xëy na moom ay at mu judd si làmb yoroo si làmb màggee si làmb. mun na xam faiblesse adversaire mun na xam fort adversaire. waaw comme moom tamit xam nga ne ma xaar ko day ñëw. mu ne la xaaral potiloo day ñëw waaw mm-hmm. man dëgg la li ma wax loolu laa def mais ba arbitre sifflé man maa dox si kawam mais xamoon naa ne moo doxee si kawam daf may wiccax loxo daw song ma man loolu xamoon naa ko boo xoolee ba arbitre sifflé man maa njëkk a dox si kawam. Mm-hmm. waaw mu door ma. coup bi daal na non coup bi de waaw coup bi dalul noonu. am mm-hmm. dëgg yàlla mais coup bu dal mooy def effet. mais loo xamante ni da nga dóor nii même bu dalee loolu cokkaas saako mën a jàppee quoi ndax dal moom day def effet waaw sinon buñ la. bu buñ la dooree di nga kaaw wala nga xaw a tërëf. loolooy kooku daal lan lan moo tax nga dóor am na benn laaw bu rëy boo ko dóor mais dalul da nga ko bëggoon wax taxawal nga liyaat nga liyaat jeu bi wala nu mu demee noonu parce que gis nañ laaw bu sooy nga ko dóor. non dëgg la xam nga dañ doon naxante rek moom da doon mieux pour song dama ko gis. xam nga moom maam bu bëggee ñëw rek. Hmm. waaw day ko quoi loolu dama ko liir si moom. ndax hmm, épaule yi waaw ndax il faut mu def ni épaule soog a ñëw looloo tax nag moo ko doon bëgg a feree ak coup bi mais dafa mépp taxaw looloo tax coup bi dalu ko. Ah, kon yow bi ngay doo jëloo woon intention. waaw wax ko taxaw da nga bëggoon coup bi daal waaw dama bëggoon coup bi dal ndax seet na ma ko seetlu première maanaam méb bu mu def. ba mhm. dóor ma ba cokkaas ma. Mhm. waaw moom dafa yëngal ma kii waaw da koo waaj. ma xoolaat ko si ay bëtam xam ni kii dafa bëgg a mais moom bu muy bëgg a boobu dafa dafa yëngal mbagg yi rek taxawoon ma dóor si air bi mais boobu dama doon xaar pour mu ñëw quoi. Mhm. waaw loolu tax ma dóor noonu koo fi dalul. ngeen bëre dem dem ba ci côté saako yi euh, yaa tànte action bi wala moom moo ko sax. non moom moo tànte action bi mais foofu nag gars yi ñoo ngi laam-laame est-ce jël am na am jël amul. non foofu jël buy am moom moo daanu ndax boo xoolee ensemble bi mu ngi tegu si kaw saako bi man moom caméra mun nañ génnee fépp sama conco laa teg sama ngi sama loxo mu ngi si ngembam sama loxo droite mu ngi si biir ngembam. Mhm. sama conco bi laa teg caméra yi mun nañ génnee angle yëpp su leen neexee. waaw man boobu foogoon naa ne dina ma jox victoire sax mais comme arbitre jox ma victoire ma ne xaaral ma ñëwaat dama koy daanaat. ndax loolu laa gëm quoi sikk sàkk xoolaat xoolaat habitude wala waxtaan ak ñoom ne jël am na. non non non non non ndax xam nga maanaam parfois lamb boo si nekkee nii même bu sit amee. Hmm. yow boo njëkkee daanu xam nga boo njëkkoon daanu xam nga parfois kay da ngay bañ. Hmm. waaw ne daanu woo mais soo xoolee ba si biir da ngay xam ne yaa daan wala dañ laa daan waaw man nag moom sikki saako moom benn yoon xamoon naa ne moom victoire bu am arbitre mën la yëkkat sama loxo wala day sifflé waat. si première site bi ngeen dellusiwaat ba tey mu taxawaat bëgg a ñëw nga taxaw di ko xaar waaw ndax loolu lañ ma wax xaar ko boo ko sëkkatalee day ñëw ndax moom lool lay bëri day jël si day yooru te tam xam nga rek moom xale la bu bëgg ay defi quoi ndax 15 secondes la ma moyante loolu la doon bëgg a dëggal. ah dafa la waxoon 15 secondes. ma waxoon dafa may a dëggal temps loolu dafa xew ay 15 secondes ay ñi naan 7 ñi naan 10. non loolu ay rek. waxoon naa ko bi waxoon sax si interview bi ma defoon. Mhm. yaa ngi ko mën góor du ma yab quoi. waaw su ma nee góor du ma yab nag mooy maanaam waxee moo ko ngir manque de respect kenn mais loolu sama gëm-gëm la. Mhm. waaw ak su lu mu mënti doon nag mun naa daan mun nga maa daan. Mhm. mais man du ma ñàkk feere ba góor di ma yab. waaw foofu laa doon waxee quoi. ok euh, benn beneen song bi muy song dafa mel ni song bi dafa sooy ndax bi muy ñëw da nga séen ndax laataa mu yegg si maa ngi gis sa benn sa loxo gauche bi moo ci ngemb li defe naa ne sa bopp nga ko fàqatee. waaw ndax moom dafa daw song ma. Mhm. dafa ma dafa sifflé. ma toog samay tànk wut si ko mu wiccaxaat ma loxo bi daw jël ma bu mu jëlee benn paalaa def. mais jël bi soriwul. non jël bi dafa sori waaw. ndax na xëy na dafa yàqamte moo tax mu doxalee noonu. quoi waaw parce que loolu la wax sànq nee mhm. moom ñëpp loolu lañ koy wax. Mhm. teeyal teeyal mais moom moo mënut a teey bu bu ñëw daal kutoo kut dafa bëggoon man dafa am sax lu ma tëb moment bi mu lay moment bi mu lay bal di la biij. waaw defe naa tenté na ko ñaari yoon. waaw tenté na ko waaw trois fois sax yaakaar naa. trois fois waaw mooy fi maanaam fi ñu wax site bi daa am noonu ok waaw waaw tenté na ko trois fois quoi. ndax moom lan moo tax demuloo la moo tax demuloo. non ko tenté. <laughs> non dama xam ne dama ko ëpp doole nag. <laughs> da ëpp doole waaw ah, moom mais moom mais moom nangu lool parce que nee na bu fekkoon da nga ko ëpp doole moment bi nga hmm. di ko force pour zongale ko. waaw moment bi koy jàpp def nga effort yëpp mais bu fekkoon da nga ko ëpp doole dina jóg. non c'est que xam nga parfois nit ki mun nga ko ëpp doole. nga hmm. jàpp ko jàpp bu baaxul fii ba suba munoo ko am manipuler. ni ma ko jàppee moo baaxul moo tax xam nga zongale nekkul noo jàppee rek zongale. Hmm. waaw zongale dafa am nooy. jàppee mais li ma jaaxal amul ñaari loxo ci ngemb. non am naa ñaari loxo ci ngemb mais parfois da ngay teg loxo rek ci ngemb bi mais bul hmm. yaakaar da ngay jàpp de am ñoo xam bi mais sëkk sëkk jàpp moom ngembam xam naa daa am lu ci dugal nag moo tax. non mais ngemb dugal daal parce que bi muy ñëw bu fekkoon moom day daw di ñëw ak bi nga ko fàq benn. non c'est que lu tax ma roof sama loxo rek jàpp mais bu doon njool la bu dawee song bu ma roofee sama loxo mun naa bañ a fekk dara mais dama koo prolonge moo tax moo tax ma njëkk koo jàpp te moom boo xoolee moom jàpp na ñaari ngéem bu sax ndax moom bi muy song dafa daw jàpp ma leen ma yóotu jàpp bu mu dawaat di ñëw nag boobu laa ko xaar xam ne kii day ñëwaat. nga dawale tànk bi. waaw ma dawale tànk bi waaw tànk tànk bu mu doon yootu moom laa ràcc si ginnaaw teesi ngéem lu tuur ko mu ñëw. mu nekk jëlu boy. waaw ah, dëgg la jëlu mbër bu ndaw rek jëlu mbër bu ndaw ndax ñun moom defaguñ dara si làmb bi mooy suñu cinquième combat ñaata victoire 4 4 benn défaite waaw waaw benn défaite la la mën a yóbbu parce que nekk na combat boo xamante ne amateur yi ko xaar ñuy dund làmb tamit bëggoon nañu bii combat combat bi la la mën a yóbbu waaw ah, loolu dëgg nga affaire moom làmb bu nekk rek boo ko daanee ak fu mu lay yóbbu mm-hmm. amaana doon naa bëre sax daan xam nga affaire du mel nii quoi mm-hmm. mm-hmm. mais xëy na waaw waaw na bis bu nekk rek ak lu mu laaj adversaire bu nekk rek ak lu mu yeyoo quoi xëy na adversaire bi moo tolloon noonu moom du dayam quoi si làmb ndax lan xale la comprendre nga may mais comme wax yu si jot a am ak xam nga détails yu si jot am moo tax xam nga làmb ji demee woon noonu ko parce que Zil Zil Ama Balde dafa ne dafa ne man maa jëli paa bi andi ko fi nga xamante ni nii mooy équipe Faalaye Balde. Mhm. dama ne ko lan moo tax euh, soq nekk fee nga jëlee moom mu jóge foofu ñëw ci yow mu ne ma euh, am euh, soq sama waay mais paa bi sama mbër la man maa ko jëlee foofu andi ko fii ndax làmb ji sama làmb la. waaw loolu dëgg la ndax man bu may dem si Ama boobu noonu bëreeguma sax arène foofu laa njëkk a bëree arène waaw moom moo ma jëlee fii nii yóbbu ma foofu noonu mhm. ndax boobu sama yaar bu ma doon tere bëre mais dafa ñëw tàggul ma maire bi pour maire bàyyi ma bëre pour mu dem yóbbu ma foofu noonu maire bi da ko waaw ndax lan da ko rusoon mais xam nga rek nekkul woon lu mu bëgg waaw lu mu bëgg quoi da si doon insister pour ma bàyyi mhm. mais si laamu ji la mooy soog a nangul maanaam pour ma nekk mbër quoi pour ma góorgóorlu si si combat bii nii sa quatre combats yi nga def yëpp mais nangu a nangu waaw si tax lan moo tax sa combat ak Petit Lo muy doog non li jot a xew li jot a xew ci ci ci ci combat yee passé la wala. non xëy na maanaam moom li mu doon wax moom moo ko xam quoi wala moo ko gis. Mhm. te dama xam nga maanaam doom du ko coog waajuram quoi. Mhm. waaw ñun moom ay xale lañ rek nekk ak suñuy mag loolu la doon bañ ci ñoom ba mu ëpp leen doole. Mhm. mënatu leen freiné léegi man nag man. maa doon soog mu bañoon nga rëcc. <laughs> waaw mu bañoon mu rëcc loolu taxul moo doon freiné si loolu noonu mais xam nga rek nit moom soo waxtaanee ak sa yaay rek maanaam di nga trouver solution quoi. waaw sama mag yi itam wax si bu baax. comprendre nga. Mhm. mu xam ni tam loo laa bëgg tam mu nangu ma si bàyyi pour ma nekk mbër. Mhm. waaw te tam xam nga rek si wane ñàkk jom quoi ndax xam nga comme tey jii nii maanaam suñ la bàyyee benn nga ne si benn affaire ni mhm. waaw bu si nangoo wane ñàkk jom kon nañ naan kii ak lu mu doon wax comme lu mu doon wax gëmu ko. waaw te wax dëgg yàlla nag fii ma teg sama bët maanaam du ay caaxaan moo fay yeggale ko waaw i faut que ma góorgóorlu bu baax wane ni carrément li ma nekk dama ko bëgg ba pare gëm ko. lan moo la gën a neex ci làmb bi nga bi nga bi nga ci gannaaw bi nga lan moo la ci gën a neex. làmb yàlla li ma gën a neex si làmb. Mhm. ah bëri loolu moom moo ma gën a neex si bëri yóbbu mbër sax neex na mais man ñu yóbbu moom mooy bëri loolu ma neex si làmb. la gën a métti ci làmb gannaaw bi nga ci dugg ak léegi yàggul. Mhm. lan moo la gën a métti ah, ma gën a métti si làmb xanaa ma yóbbu daal leen de loolu daal moo. métti moo la ci non yi ma metti bëri na ndax defet parce que nag defet waa defet defet moom neexul gaa mhm. mais ban defet nga dem ñëw toog di regretter naan ay bu doon man wala su fekkoon dama cee mën a def la wax dëgg yàlla defet defet maanaam bi ma gën a metti hmm. ci làmb hmm. soq mu doon bëreeg Ramadaan boobu moo ma gën a metti puusal ak jëtli ba mu doon bëreeg Bébé Saloum waaw yooyu moo ma gën a metti seen defet yëpp nag soq bi na lu tax soq daan gën laa metti non waaw dama xam ni soq maanaam fi mu tegoon làmb ji hmm. ku loolu Ramadaan mënoon nakaa daan ak yeneen ak yeneen yu si xew mais xam nga am na yoo xam ne maanaam loo toog di ka neetali wala ngay toog di xam nga expliquer lii si télé ak rajo yi waaw ah, dafay am loo xamante ni maam daf lay concerné quoi mu yem si yow mais du foo toog rek wax ko. kon fi mu toll daal su ma dégg wax ji mooy kii di kii di Bébé Saloum ak kii di Ramdan fi mu toll moom bu ñu desantoo ci làmb ba léegi ba yóbboo ñu waajal seen wàll. non ñooñu moom wax dëgg yàlla Ramdan moom moom léegi moom mu ngi érasé ni quoi xaw ma fa xam bàyyi moom moom moom baax la parfois daf may woo quoi hmm. parfois daf may woo hmm. mais Bébé tam xam nga nekk tam grand bu baax wax dëgg yàlla mais su ma sañoon daal non bàyyeegul mais ma sañoon daal. waaw heure bu ma àggee foofu moom ñooñu moom bëgg naa jëflante ak ñoom quoi. ñu may la chance waaw. incha allah mais fi toon nii am nga ci ndam. Mhm. fan la fan fan nga teg sa bët. ah mooy li ñëpp bëgg rek nekk champion rek. non waxuma ñëpp bëgg nekk champion moom moom ngay moom mais ñan nekk sa kanam fi mu toll parce que say buntu làmb ubbeeku na gis nañ ñoo xamante ne bëri nañ démb say adversaire lañu am na ñeneen ak ñeneen xale yaa ngi bëri daan waaw moom dëgg la samay morom bëri nañ si làmb ji mais man aw ma habitude di wër ay mbër di wax ni kii laa bëgg a bëreel wala kee laa soxla laal maa ngi fi pour làmb mhm. samay morom bëri nañ fi trop du ma nekk nag di lim tur kenn da ngay génn paasal wala da nga ku ma làmb booleel mu bëri ak moom ku ma làmb booleel mu bëri ak moom nekk ma fi di lim kii wala kee ku ma làmb booleel mu bëri ak moom di nga bëree démb ak tey promoteur woo nañu waaw am na ñu doon woo sama tons di ko wax sama combat mais man moom xam nga man moom nekkul man maay décider sama dañ may wax rek adversaire baax nañ. waaw adversaire yi baax nañ de mais ñiñ ñu ma wax yëpp kuñ ma si kuñ ma si wax kuñ ma si jox ma jël de. Hmm. waaw taamu ma si kenn. boo mën kàddu yu mujj lu muy doon. waaw di sant yàlla bu baax nag. Hmm. di sant waa koñ bi fii waa Ardem 4. waaw maa ngi sant sama grand pa Fara. Hmm. moom borom baax la ko mu ngi fii nii si koñ bi xam nga. loxoom du jug si ñun borom TFM. maa ngi koy sant bu baax. moom suñu grand la da siy jàpp bu baax wax dëgg yàlla si doolem ak léppam. xam nga loolu noonu yombul ndax jamono bi neexul. Mm-hmm. a ah, di sant tam suñu mag suuna quoi. Mm-hmm. moom mu ngi fii nii si koñ bi. waaw ñun mooy suñu mag mais dañ ko jàppee comme suñu yaay bu ñu jur quoi. waaw mm-hmm. ah, di sant waa koñ yëpp ñoom bili suñu grand. di jël affaire di ko teg su loxoom ndax moom làmb ji sonn na si torop mook booy. a ah, booy nag bëri nañ torop su ma limee du ma jum waaye damay <laughs> du ma matal. waaw di sant yàlla bu di sant waa ginnaaw raay yëpp. di sant waa Pikine yëpp. waaw di sant ASC e yi fi nekk nag ndax ku si nekk moom wax dëgg yàlla gis naa sa taxawaay bu ngi si def quoi. Mhm. di sant waa ginnaaw raay waa jàmmo waa jokkoo waa manko waa yaakaar waa déggoo. Mhm. waa mango ji di sant ñëpp. di sant nag sama ginnaaw sama grand quoi Seeku. Mhm. maa ngi koy sant bu baax Coor di ko sant bu baax. waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal tan waaw di sant ñëpp. waaw di sant waa Casamance nag bu baax ndax nit moom maanaam amul lu dul dëkk quoi. waaw di sant bu sant waa Ñoojoor ak waa Fimela sant waa Munde ak waa di sant ñëpp waaw di sant waa Caalaan nag bu baax affaire yi moom yombul woon quoi di sant waa Jirna di leen sant bu baax ak waa Diofior ak waa Jilas waaw di sant ñëpp waaw su ma limee nag dinaa jum nag ndax affaire yi moo yombul woon quoi waaw su ma fàttee kenn tam maa ngi bu baax ak Assane Jambaar sama grand maa ngi koy bu baax ak Jaw Ngooñ <laughs> ak Jaw Ngooñ maa ngi koy sant bu baax moom sama grand la ay palaasam la teg dem stade te loolu yombul. Hmm. mbër mosu koo am si moom. di sant waa Kër Massar bu baax nag di ko teg si loxo Paul ak Baye Mor sama gaan ak ñoom Bamba ñëpp di leen sant di sant waa Baale bi yëpp di sant waa Diamaguène sant waa Malika bu baax balaa balaa ngaa tëj dama lay wax lan ngay wax PSG parce que démb gis naa ni mu sonnee ci combat bi ak effort yu mu doon def. Hmm. lan ngay wax Jules parce que gis na ni muy sonnee ci sa écrit Falaye Baldé gis na ni muy sonnee ci xale moom boo gisee lu tax muy sonn si xale ñun dañ ñoo jël ñu dénk ñu ko. Mhm. comprendre nga ñun moom la ñu dénk. Mhm. te xam nga moom dafa bëgg ndam. Mhm. moom daf ñu koy wax man dama bëgg ndam. moo tax caaxaan. te xam maanaam ku bëgg ndam. ak ku bëgg ndam ñoo mën a ànd ñaar ñu bëgg ndam ñoo mën a ànd. comprendre nga te ñun wax dëgg yàlla moom dafa jël jikoom di ko def si ñun. waaw donte ko jëlaguñ lépp si moom nag ndax moom bari na xel trop si làmb. waaw ndax lan dafa bañ ko ko yab dafa bëgg victoire. loolooy waral muy demee nii ndax moom suñu papa la. làmb ji wax dëgg yàlla def na si lépp pour ma daan te loolu yombul woon. Mhm. waaw ndax moom duy faral maanaam xam nga su la entraîné booba da lay ñaanal. Mhm. mais làmb ji nii moo ko jaraloon ndax gars yi xam nga wax yi ñu si wax quoi. waaw looloo tax mu gënoon dugg si làmb ji non non non non moom règlement la ñuy maanaam la ñu tegal si écurie bi ku si mhm. nekk da ngay tënku si règlement wu bi. waaw ñun suñu écurie ñemewoo entraîné lu mot mois maanaam comme nii soo entraîné wul un mois si écurie bi jël combat. boo boo maanaam boo boo teglewul un mois ñemewoo jël soo teglewul un mois entraîné si équipe ñemewoo jël combat boo ko jëlee da la koy delloo ndax règlement boobu la fa teg te ñun ñëpp dañ ko war respecté waaw ku jalgati règlement bi nag mu teg la si yoon ndax moom loolu lay doxee mhm. waaw xam nga làmb ji yombul woon ko waaw di ko sant bu baax nag di sant sama grand zigal moom moom borom baax la jàpp na si làmb ji torop ak Soora Jaw maa ngi koy sant bu baax mu ngi ma Italie mhm. waaw jàpp na si combat bi ak Jalli sama nijaay maa ngi koy sama maa ngi koy bu baax xam nga affaire yu yombul ko mhm. waaw parfois nit ki tam xam nga day dem jaayante daan dooleem xam nga lu mu am ñëw bokk ak yow. Mhm. te ba muy dem dala bàyyoon fii nii xam nga mooy loolu. Mhm. waaw maa ngi koy sant bu baax ak Paalamin Paalamin Njaay borom Espagne maa ngi koy sant bu baax jàpp na si affaire yi. waaw di sant waa diaspora bi ñëpp nag capitaine maa ngi koy sant bu baax lii nga génneel moo ko dégg kii. léppay jàpp maa ngi koy sant bu baax affaire yi métti woon na trop. waaw mu yëkkati lu bëri jox ma ak Ibulaay maa ngi koy sant bu baax Ibulaay Ngom. maa ngi koy bu baax moom moom sama gannaaw la moom mu njëkk a defaral ci set loolu lu ma ko mës maa ngi koy sant bu baax victoire may naa ko ndax sonn na bu baax waaw di sant ñëpp nag waaw bàyyiwuma kenn ak maire Mayandour maa ngi koy sant bu baax sama yaay ak Ndiaye Ciss di ko sant bu baax ak Ablaye Diop Moussa le maire di leen sant ñoom ñëpp waa Enda nag bàyyiwuma kenn aw ma seen fay ak waa Massé Waranka di leen sant bu baax waaw di sant ñëpp daal. waa maa ngi nuyu ñëpp. gis ngeen mbokk yi nii la doon demee tey ñu seet soor nga xamante ne mooy Sokh Sokh bu ndaw mu doon jëflante ak ki nga xamante mooy Petit Lo jox dig daje beneen yoon yeneen ba ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf